émission tegtal tegtal ak ñëwaat na waxtu wi ngeen ko doon am waxtu wii jotati na ca heure bam jotoon démb waxtu wii jotati ca Kër Matar job nekk ca région de Louga département Kébémer arrondissement Sagata di dëkku Baye Matar Xaar di jaajëfal wa Kër Matar ak seen fondation pour mbokk gi gën a jëm kanam ma gën a xam mbokk bu baax a baax tegtal nag fi mu ñëw tey fu doy waar dafi gan te min na ko lool wante nag li tax ñu fi ñëwaat waji dafa ñëwaat waji day def ñenti fan Dakar ñu woo ko ñu ne dem na tey nag bu ñëwee moo tax am na yu bari yu ñu war a waxtaane moo tax ñu doxantu ba fii ci pikin bo ñëw ba pikin rek euh, ba jeexal technopole bi rek wetu kër Baboy Mbër ñu koy nuyu nga ñëw ci Bank of Africa bi boo taxawee laaj ci kër gi ñu war la ko muy di kan jama kante fils di Diabou doomu jinne di ku doy waar ki nga xam ne que baat bi da daan gën a ñàng nag dam ay ki pettaaw yooyu mais tey affaire yi dafa xaw a ñi ngi lay nuyu di la dalal ci émission tektal di wax na jamono ji yaangi Dakar mais lan moo waral baat bi wéet tamit bo nuyo bari ñi lay sétal alhamdullilah ma ngi leen sant yéen ñëpp waa Dakar ñëpp daal ma ngi lay nuyu bu baax a baax mag xale jigéen góor alhamdullilah maa ngi Dakar ñu ngi suma jàmm maa ngi fi incha allah ñëpp daal. maa ngi leen nuyu waa yi waa autorité yi ñëpp daal maa ngi koy nuyu ñëpp. di ñaanal njiitu réew. voilà yaa ngi ñaanal njiitu réew. ñëpp daal maa ngi koy ñaanal guddi ak bëccëg yàlla wàcc ñu ñëpp jàmm salaam. tey baat bi dafa wéet quoi li nga takk daan nga takk lu gën a bari lii ci fii. waaw xam nga nit. Mhm. looy liggéey mm-hmm. chaque jour am na yàlla lu may yokk chaque jour mm-hmm. liggéey fu ne la kon bi ma la mujjee jël émission leen di nga dem sa xam-xam yokkaan na bu baax vraiment alhamdulilah xam nga euh, sa yaay walla sa papa mu joxal la dara tey lii mm-hmm. mais lii bul ko jël suba nga ñëw nga jël li ginaaw suba nga ñew nga jël li bo lepp mot nga mënu ko téye bi du muy lu mu nekk ni muso muso gis man alhamdullilah ma sha Allah alhamdullilah kooku moo di Jama Kanté ah, ku la ñewal li nga sol moom allah rafet la na alhamdullilah Ibrahima mom mhm. mi ngi mhm. sama xarit la kii bi ci lépp daal di moom ma ko ñawal vraiment sama xarit la moom sama couture ñoo ma ñawal waaw joxuma dërëm sax alhamdulilah ko ñaw rek maa ngi toog rek mu jox ma donc nit lo loo baax rek wala loo def rek da ngay def sa bopp yau, ñu ñëw ci biir mbir yi nag yu doy waar yi maanaam yow da nga ne kuy wut place yow yaa ya wax yow ci morom li ci man doone keneen mënu ko ci de mais ci ci wut place te nit ñi ñii wut liggéey moo ëpp ci dëkk bi ñii ngi ñàkk liggéey ñii ngi wut liggéey yow wàllum kuy wut liggéey wut place loo ci man alhamdulilah kuy wut liggéey ñu xamante nga bari sa yaram ci jafe-jafe loo ci dugg dina yàqu loo ci jël pour mu am si njëriñ sa loxo problème la donk incha allah rabbi yàlla bu ñu bu defee man ak kooku bu ñu jaakaarloo suñu borom yëpp da lay defar da lay defar man nag su fekkee mënu ma ko faj dooma euh, nit ku ne doo ñëw si man mhm. non non non kon daal ku narul baax la doo gisante yow voilà même su fekkee nga maa ngi fi tey Dakar nga ne ah léegi xaaral ma bàyyi suba mu dem si kanté balaa ngay ñëw suba fekkee dem na <laughs> <laughs> ah baax la noonu lay demee loolu ay mbir yàlla la ko euh. donc aussi. Mhm. nga nag nga nga am place. Mhm. donc place boobu amul si foofu amoo njëriñ. Mhm. wala ñu ngi lay xeet pour yow nga dégager. ku nekk sa ginnaaw dafa lay yàqaar rek pour nga dégager moom mu placer. donc incha allah rabbi boo ñëwee si loolu. dinaa la jàppale. da toog. nga ñëw sa doom nga jox ko moom moom aussi doomam aussi mu jox ko non cest à sa famille bi yëpp. Mhm. nga nekk ministre woo nga nekk député wala nga nekk maire lépp daal. Mhm. c'est-à-dire waxuma keneen. Mhm. mais man bu ñuy jàkkaarloo. c'est-à-dire boobu xëy na da nga koy séddale yow ak sa famille. kenn du boole. donc alhamdulilah loolu mbir yàlla la. legi loolu nan la ko nit ki defee maanaam lu muy naan la lu muy takku la wala loo wër dal la wala sarax la wala lan la lépp mu wax la dem uti defar nga jox la ka sangu am ñu xamante bëgguñu teere mm-hmm. sangu la ñu bëgg ma defar la yépp mu boole si nga sangu nga defar sa biir kër mm-hmm. lépp mu aar lépp daal mm-hmm. ñu xamante nga takk ku ko bugg takk mo mo mo defaral la nga takk ku buggul takk aussi ne sangu nga bugg mo defaral la nga sangu en tout cas man sama liggéey du yeex loolu mo tax ma ñu wax ma fi diable man sama liggéey du yeex yow à peu près ñaata fan sa liggéey def résultat donc man sama li lu mënta bari bari bari bari hmm. lu mënta yag yag yag yàgg 20 hmm. jours 15 jours 10 jours une semaine wallaahi amul lenn looy lijjanti luy mat weer. wallaahi. Mhm. non cest xam nga du man. Euh, Cheikh. Mhm. yàlla may na la yàlla may na kii. Mhm. yàlla may na kii. c'est que nit ku ne xamante am nga xam-xam ñu ngi toog mais bokkuñu nit ku ne yu la may. man tamit du ma yëkkati sama bopp non parce que il faut mu yem ma tey parce suñu borom moo ko moo ma ko jox. kon dama koy mérité mu ànd ak doomu aadama yi ànd ak jullit yi non la d'accord accord Kanté dégg naa li nga wax bu baax mais xam nga li ma jaaxal wax wax wax ni dafa yomb da yow est ce que lii ngay wax ni da koy wax ni ngir jàkkaarloo nit ñi pour wax ne jàpp ne wax bi man nga wax quoi mais est ce que dëggantaan ni nga ko waxee ne lépp looy faj duma du yar loolu c' est sûr que maanaam d' accord nga kon nit ki boo koy defal dara bu ëppee weer nga delloo ko xaalisam xam nga Cheikh Talif waaw yàlla moo ma gëne ci doomu aadama yi mhm. yàlla moo ma gëne ci milliard ci borom milliardaire mhm. tey ma lekk sax dërëm mhm. bu mu la fayul adduna alaata dama koy fay kon lu am solo man lu mu bëgg di lekk lu lew l'islam li ñuy bëgg bu ñu bu ñu demee foofu l'islam li ñuy bëgg pour ñu nekk foofu man tamit loolu lay ut pour mu nekk foofu mu ànd ak l'islam yi kon million wala milliards yëpp day jeex nit nit ku ne da si yoon. parce que nga xalaat bis dina ñëw ñu ñu ñu doom ñu ñëw ñu ñu càng la ñu ñu takk la ñu yóbbu la si alme ñu suul la yow kese ñu ñu dellu ñu dem kër la lan mooy des ñoom. Eh, def leen kefe eh, def leen eh, ana mm. bi. ana bi. kon yow kese yaa ngi foofu yaa ngi jante. kon nit ku ne boo toog nga xalaat ci loolu booy tëdd nga xalaat loolu boo looy def rek seet ci yàlla nga xalaat ci fi ngay mujjee du ko maa ngi wax parce que man damay xalaat fi may mu yor du caaxaan alquran voilà kon mooy lépp mooy yàq te yàq voilà man du ma du ma tooy doomu aadama du ma du ma du ma def doomu aadama duy naqari am ñoo xamante ñew ñëw amuñu dara mais ñu bon ñu jappalé ci yalla yàlla tax parce que ñom ñoom mënuñu ma fay mais suñu borom mën na ma fay lu jox na ta fay mo op solo lepp voilà donc lool la jërëjëf Diama euh, Kanté jërëjëf mbokk bi sétal bindal numéro bi gaaw parce que fiñu wara dugg fu doy war la ki mom numéro bi bu len rëccee du bax bindal bindal ko bu dé mënul bindal bopam 77 642 86 74 77 642 86 74 bindal baneen 77 084 09 00 77 084 09 00 bindal baneen moo nekk noonu ci écran bi ñu bindal la 77 926 47 82 77 926 47 82 Jama Kanté fils di jaabul di doomu jinne nek fi ci pikin ci wetu Ridis Bank of Africa bi bo jàddee rek bo ñëwee fofu ñu war la kër Diama Kanté luy so soxla nga gis ko lu mu ci man mu def ko leneen li ñu booyee ko yalla mi nga xam ne ko tëlewul dara te ëmpalewul dara te mën na lépp te iñanul soxorul baax na trop Diama Kanté ñu ñëw ci benen mbir nak bu doy war muy bo xam nak ko ko boleh yoon bële mu yëm ñu bari muy walum tukki tukki mo da nga wax ne ni Messi mel ci bal bi daanaka non nga ci mel walum passeport ne nga yo boo téye passeport bi ñetti fan ha nit ki mënul def fukki fan ak juroom 15 jours ak ambassade bu man di doon te duñ ko may visa muy États-Unis muy France Italie réew bu man di doon si adina bi kon yow wolu nga sa bop ci walum tukki man gis na ku ñew ci yow ne la walum tukki passeport nga ne ko il faut nga xol ko ba pare parce que bala ngay engager day fekk nga xol li ngay dugg ba pare léegi ma bëggoon xam mbiru tukki bi tamit nonu yaa ci def résultat ba nit ñi di nangu ne def li ñu doon wut ci amna wala xam-xam bi manki na fofu alhamdullilah content na ci lolu mhm. Cheikh. jërëjëf. man euh, kaamil bi la gëm. alcorane mo jara gëm. alcorane bi la gëm. gëmu dara ci aduna lolu alcorane dul alcorane c'est-à-dire su fekkee tey man boole naa ak lu jaadul ci alquran. Mm-hmm. non damay dellu si ginnaaw même li mooy bind su fekkee dëgg la dina yàqu. wallahi tallahi billahi ku indi passeport moo defal la consultation États-Unis nga bëgg France Allemagne fu ne mu def consultation nga indi passeport bi. trois jours ma fanaan moom mu jox la quatrième jour nga ñëw jël sa passeport nga dem si congé la nga jël rendez dem billaahi wallaahi quinze jours mhm. quinze jours bu ñuy woowee pour nga ñëw jël si visa bi mhm. non dinaa san si kaani non loolu day parce que xam naa mhm. euh, du nekk quoi parce que lu mu luy nekk loolu la wax yaa may dégg. parce que xam nga nit. waaw. loo mun si àdduna. da ngay def nga tëkk si yoon nga ànd ak ñun ak ak suñu borom. moo am solo. moo am solo lu lu des ay caaxaan la. d'accord lu des ay caaxaan la. Mm-hmm. gis nga man depil depuis depuis 2004 euh, maa ngi maa ngi Dakar du ma toog Dakar kilifa ñoo may woo kilifa. ñëw may woo ñu déplacé ma ñu fay sama apartement ma ñëw mu liggéey leen ma ba mu pare mu ñibbi Bakel. Hmm, lu mel noonu ku ko bëgg moom xanaa dina jafe trop de. yaa ngi dégg dina fay dina ñoqi bu baax de. non. Hmm. xam nga xaalis du dara seex. Hmm, xaalis ay deuxième lu da non xaalis du dara. boo calculé nga dee fii xaalis bi mu munul munul jël yëkkati yóbbu la hôpital wala yóbbu la si almer xaalis bi munul. xaalis boobu 7 mètres per quart rek la ko. ok jeex na. kon nga wut nit doomu adam mooy am ëpp solo ak jàppale doomu parce que boo toog nga ne bu man bugguma doomu adam man xaas laa bugg tey nga am problème sa kër wala sa wala sa néeg wala sa kër mo mo lakk yow kese nit ñi bu ñëwul da ngay dee foofu waaw du loo tax wolof naa nit nit ay garab voilà nit bu toog nga ne man soxla moo nit man xaas la soxla moo nit noonu mhm. ñu ngi sant yàlla ñu yëpp legi li mu bëgg wax yow est-ce que di ngay tukki comme ni nga woo ne pour nga di leen bu bitim réew pour 15 jours ñu may leen ak bu man di doon yow est-ce que réew yooyu mas nga fa dem wala. Euh, wala bëggoo ko wala. Alhamdulillah Cheikh. Mhm. man tey jii. de son papa lu mu wax loolu laa koy jël mot. Mhm. man su man kese Dimo ma fanaan Bude, bu kese. Bilai Ah, c'est pas pour le premier tukki bu mu neexal du ma dugg si avion ah bon billahi wallahi tallahi barke salatu li fatiha ah. billahi parce que man papa mhm. dina ñëw nga ñëw mu jël kurus mu toog mu toog mu toogal lekkat nga toog ma 30 minutes bul ubbi sa bot 30 minutes bu jotee nga ubbi sa bot fi ngay dal ci France su fekkee marché ngay nekk wala fi marché ngay dal foofu boo ko ubbee sa bott nga gis nga gis sa bopp foofu. boo eggee li nga war a jox nga jox boo ko joxul non li nga ñëwee loolu ngay. kon moom da lay wan nii nga gis fa ngay dal ci France ak yëpp. wallaahi yéen ñi seetaan Tektal mbir am na. léegi mais kooku sa papa la te moom nekkatu fi yàlla na ko yàlla xaaraa jënd mais ndax loolu mi ngi ci yow nag xanaa déggoo ma ma ne. waaw alhamdulilah moom lu mu dem. Hmm? yóbbul dara. lépp jox la ko ku dul lu muy sok si yàlla. loolu la yóbbu mais mi ngi si ñoom. secret yëpp mi ngi ci yow. waaw kon gàttal boo bëggoon fanaane Amérique tey di ko def te doo dugg ci avion doo loolu kay ay mbir yàlla wax. dégg ay mbir am ka ba bëggoon ngay dem léegi nii te doo dugg dara ma ne ay la loolu loolu na ba pare loolu mbir yàlla la. yaa ngi bëgg mu leeral mooy boo ko bëggee yomb na la daal. voilà tey tey bu mu waxee mu dem France États-Unis mu foofu. Mhm. mu reer foofu mu ñëwaat. wallahi billahi non stade mais yow yow miin jàkkaarloo nga wax nit kese nga wala da ngaa rax wala. non xam nga sànq eh, la nga wax nga ne fils di diable. waaw fils di diable. mais fils di diable xam nga nit du li jox la tur noonu non. Hmm. am lu tax. damay dégg am lu tax yow mii am na yoo xamante man eh, action yoo xamante man bu ma la wëree bu ñu toogee nii. Hmm. yow da ngay dem da da ngay daw nga bàyyi man kese kon <laughs> fekkee ma dara sax. donc loolu bon xam yàlla may na la de ko bon gënuma ñëpp daal mais yàlla may na la daal voilà gënuma ñëpp donc aw ma si du ma toog ma ne man man man maa yor si xam-xam lépp non mhm. non non nit ku ne yàlla may na la c'est mhm. tout léegi est-ce que mën nga leen yow mhm. euh, comme par exemple koo xam ne que day football loo xam ne que chaque chaque match muy dugal rek fu mu dug muy dugal rek daal ku bëgg di dugal ci football <laughs> même bu dee football ci tubaab yeeg yooyu xam nga man waaw amna fi nga dugg mhm. parce que bala tay di ñew si mhm. lo lay yëngu depuis ma ngi ni ci xalé bu ndaw ba mhm. doon jouer chaque année ñu yëm ci final man ma def lepp mais ma ben terrain la jox ben terrain nga def sa dali ci bir euh, dali non chaque match da ngay dugg da ngay dugg wala da ngay dugal waaw bu fekk ngi joué si euh, à droite latéral non chaque match. yi mu mhm. non. xam nga dafa am ay joueurs yu Sénégal yu nekk ci club yi léeg-léeg seen mbir du doxaw yu mel noonu kon ñooñu bu ñëwoon ci yow mën nga leen jox loo xam ne que fa nekk ca tubaab yi dañuy dugal rek. non. billaay wallaay benn tere laa lay jox. Mhm. non chaque match il faut nga dugal bi non il nga dugg yow xanaa ñuy wax rek non eh, orzo la mais yow moom <laughs> il kii bi non. mais benn bii rek nga ko assuré wala. non xam nga benn bu duggee rek jafe léeg-léeg bu na mënee 3 nga dóor. non benn baaxul. xam nga nu ñu xamante ne. ñu calculé non Cheikh Talif li mu dugg si match il faut mu dugal si benn bi. Mhm. yaa ngi rek mais gaña mhm. yàlla yàlla moo ko doon. Ah, d'accord kon am na li ma bëggoon xam mooy yenn joueurs yi ma doon yóbbante yenn questions yi kon dégg ngeen. waa ji nee na je marque la xaw ma yor na ko kon ci lu leer yoo xam ne que moom da koy def. léegi Diama balaa muy dugaat ci leneen lii nii laa bëgg dañ kumpa lii wàcce ko ñu xool. ah tegtal affaire bu doy waar a ngi nii lii di càkkaaba lay niroon càkkaaba teg ci couleur yi vert jaune la couleur Sénégal waaw léegi lii lan mooy njariñam ak lu ko tax a jóg dinaa gis su père Gaston Mbengue. maa koy nga bii. Mhm. mag yi. waaw te xam na lan mag yi ku toog. Mhm. dañuy xam kii mooy lan mhm. kii. waaw. roi roi ñoo ko moom roi nga nek borom tur wala nga nek roi roi des arènes ci lamb ji wala roi voilà lepp daal roi kii rien réew yeeg yooyu daa damay deg ki ah. moy Salep Mohamed Sis ah moy moy Salep Salep waaw Salep ban lak la ki moy ko ki moy lepp dal Salep ah moy sa lépp ok waaw cest ki dila la ar lu bari mhm. tay jii waaw su fekkee yaa ngi dem fen waaw ah. problème mooy am foofu. wala bu ma dem si exemple léegi. yaa ngi dem bëre. Mhm. ak ak yu ak jiw yi ngay bëre. waaw ah. su fekkee da ngay daanu boo ko jëlee nga def nii. waaw ah. day dem si suuf. boo waree daanu. day dem. mbër yi déglu leen bu baax waaw. yaa ngi dégg. Mhm. mais lii. Tivaouane xam nga lépp dal instant bi fi nekk ñu jege bi ñu ko jege ni mi ngi ñuy jëriñ dara wala Cheikh Talif wallaay même kii waaw laali bi kase de waaw laali bi kase uh-huh. de mois da la aar deux mois billahi wala laal bi kase ah, kon xaaral ma laalaat baax a mois laali bi kase deux mois uh-huh. da la aaral jërëjëf dama ko doon kii pour ñu dugaal ci ñëw léegi euh, jërëjëf Diama Kanté léegi ñu ñëwaat ci beneen mbir est ce que man nga len manam nit ko xamna ko buy def len xam léeg-léeg ñi moytu tak dere yu mel non pour bëgg jaar fen te du la gis wala nek bitim rew di làq di làqatu policier yeeg yoy yooyu loo ci man pour ko xam nit ki day romb ba jall kenn du ko gis waaw salut comme lolu ay ay lëndëm la mhm. go affaire jinne la rek mhm. man man a la jarul sax mo wax <laughs> jinne nga fils si jaamul kay doomu jinne bu bu loolu rek ku ah, bëgg loolu bu ñëwee ci yow nga defal ko waaw xam nga avant ñu ngi defee pour nga dem uti xaalis nga ñëw dund ak sa njaboot mais léegi ñu bari ñu ngi dem boo ko boo ko joxee ñu dem sàcc wala ñu dem ci affaire yi. def ay luxur la. voilà loolu moo tax. Mhm. Euh, san papa jox na ma kaddu damay moytu lu bari. Mhm. mais ku ñëw mooy assuré ma vraiment kii. Mhm. du xamul caaxaan dafa bëgg protéger su boppam. boo ñëwee ma defal léegi jërëjëf Diama euh, kante ci leeral yooyu léegi tamit dafa am loo waxoon yoon bële am ñuy xel ñaar lii mën na nekk mënul nekk ba am ñoo xam ne dañ koy weddi sax ñàkk ko gëm mooy li nga ne yow yor nga tul boo xam ne que waxoo ay jaase ki fetale ki lancet ak yooyu mais fetal bu ko nit ki dóoree du man ci yow dara boobu laa bëgg ñu ñëwaat ba xam ba xam kii weddi loo koy tontu bu ca jàkkaarloo yow. non cest euh, adduna. waaw ku wedd. Mhm. xamul dara jàngul. parce que yàlla neen ñu bàyyi werante ñu bàyyi ku ku ku wax noo lii mënu nekk wax na si loolu kuy werante tey ji ku bëgg xam bu nga ko wala bëgg nga am na wala xamul amul nga ñëw duma la tey sa xaalis ma essayé sa kanam boobaa yor naa si wax mais wóor na leen daal fetal moom du du du tàkk. non. jaasi du dugg. xam nga xam nga non cest à tey pour mu nga amul bu baax. Mhm. jafe na. te leer na la bu baax nga yor. xam nga léegi xam-xam yàqu na léegi. amuñu xam amuñu xamante xam amuñu xamante amul barke. Mhm. yow yor nga ci ci xam-xam boobu lii boo ko defee lii lay def fekkee. Mhm. yàqu na sa ko xamoo ko parce que lu mu bañ def defal nga ko. yaa ngi dégg yan lu bari ñu ne yor naa yor naa li yor naa li yor naa li effectivement am na de mais dafa yàqu seen euh, lo euh, seen loxo mais xamuñu ko yaa ngi dégg mm-hmm. calculer ci guerre bi. Mm-hmm. France. waaw allemand mais suñu suñu suñu maam yi ñoo def yaa ngi mm-hmm. mais gis nga léegi ñoom bëgguñu sax nus ku ñu nga dugg Europe tuba bi baaxul dul moy sauvé France ak dul ak ken ken ken du gis hmm te boobu nga yor. yaa ngi dégg. alhamdulilah. yow tul bi li nga koy defare cher lolo non xam nga man tul li mu la wax li la fu ma ma fu ma defar nga essay bu baax. nga essay bu baax. bu boobaa ma soog a wax sinon bu mu wax rek bu baax. damay gis ne lépp loolu lu la laaj da nga naan da koy xool ba pare. léegi sa consultation seer na wala seeru. non sama consultation ku de ku ñëw rek nga dagg tikki nga dugg. Mhm. ma defal la consultation. Mhm, mais seerul. Euh, te doo laaj kenn dara. voilà boo moo seetal la xam nga nit mënoo dugg si nit doo nit nit ñëw rek. nga ne ko waaw d'accord dinaa la moo wax problème nga ne waaw d'accord dinaa la dinaa defal non il faut consulter. xool ko mënoo ko voilà mënoo est-ce que boo ko defee dina wala ban sax nga koy def. Ya, mhm. fu e mu xam nga bañ a dugg si sih ngajar. loolu pour xam fi nga jaar. voilà loolu la quoi. jërëjëf mbokk yi seetaan seen émission tegtal di émission bu mag bi nga xam ne que da ngeen ko jox bopp rafetlu fi mu jàpp maa ngi dugg nag fu doy tuwaar fii nag laay léegi laa balaa ma fiy duggaat damay joxe numéro yi ba pare jël leen parce que fu doy tuwaar laay dugg bindal bindal bindal numéro bu gaaw bu dee parce que di nga ma bindal 77 642 86.

Jama Kanté fiis di jaabul doomu jinne nekk fii ci Pikine ci wetu Ridis Bank of Africa bi boo doxee tuuti rek gis kër gi deuxième mbedd bi fii ñu ñëw nag bi kii lii dina mel ne nga jégal ma damay mel ne ku lay daanee sax mais daanee lu ma la mais yóbbante la euh, dañ la fi jëloon émission nga ne da nga yor secret alxuraan secret alxuraan bu wóor nga wax boo xam ne que boo ko defee boo soxlaa sa soxla da nga ko ciy faj sa nit bu soxlaa nga faj ko ci waaye du danga koy def mu mel ne dañ koy tiitaroog yu mel noonu léegi nga def ko ci télé bi ñenn ñi ne luxus la nga defaat ko ñu ne luxus la demaat ba am ñoo xam ne que sax dese nañ gëm ne ñii euh, affaire bi ko tegee boo seetloo côté bii boo seetloo côté bii nangam nangam xaw ci am ay jeexi jaax nit ñi di leen xaw a jaaxal am ñoo ne loolu nga defoon 40 millions ak 50 millions daa mel loolu rek nga ci mën léegi ñeneen ñi est que mën na cee defi million mën na cee def lu ma 300 mille wala 400 mille léegi ñu bëggoon lu mel noonu comme yow yaa waxoon sax benn ne bëggoon man nga ko mayoonte doo ko defaat mais ñu bëgg la ñaan comme ñiy weddi ne yow ay cinquante millions yooyu nga ci man def te teg ci ne luxus la nga defal leen lu bari genre lu mat million wala trois cent mille wala quatre cent mille wala cinq cent mille wala yu mel noonu ñu gis daal xaalis boo xam ne que dinañ xam ne lii lii la moo ñu xool ba xam foofu yaa ci toog wala keneen moo ci toog. non ça dit ça. Euh, non dama la ñaan maa la ñaan. non waaw bii. boo ko defee boo lëgee boo ko defati ñooñu ñu bàyyi noonu xam nga la dafa am ñu bari ñuy seetlu ñii naan luxus la ak yu mel noonu te yow secret alxuraan nga wax léeg nga doog ci nit ñi nit ñi ne wax dëgg yàlla man ñi doon doon am secret alxuraan mais mënul defar lu bari ay tuuti tuuti la mën a defar ñeen ñëpp ma bëggoon loolu pour bëgg lu leer ndax mën nga ci defar lu bari wala mënoo ko foofu laa bëgg lu leer parce que ñi seetaan tegtal fi mu ne ay ilaha illallah yàlla maa la ko ñaan bii mooy dernier bi yàlla moo mën quoi. yàlla moom mën. billaay te mooy maye. yàlla moom mën. man tey jii. Hmm? lu may def. waaw. ëpp naa lii. billaay ba yàlla moom mën quoi. te moo mën. xam man. lan laay pour adduna bi. Hmm? pour mu jaaxale ma. waaw nit dee mu wax mu pour mu ñëw mu yëkkati ko mu taxaw. loolu moom moo jaaxal loolu rek mooy sa problème. loolu moo jaaxal si adduna. mais adduna. Mm-hmm. dara du ma jaaxal. feebar yëpp nga mën faj. non c'est à yàlla la. ah lu la jaaxal daal waaw loolu rek la mën a jaaxal nit dee ba pare nga yëkkati ko muy dox. waaw moom moo ma jaaxal. mais lu des. <laughs> non merci beaucoup. aywa tegtaloo yi mais léegi lii ma lay ñaan ñaan xoolal kii rek pour léegi nit ñi gindee ko benn yoon ñi seetaan parce que. dama bëgg ñu sétlu ñi naan côté droite bi côté gauche bi ñi naan luxus la ñi naan secret la ñi naan tuuti nga man ñi naan mënu fofu lañ bëgg rek mbiri leer jëma kanté eh ay way tegtal way may ni ñëpp la bu mu bëggee milliard waaw dama jël kurus mhm. mu toog sama nekk mu ñaan yàlla mhm. mu ñëw fekk ma alhamdulillah ku ñëw si man damay dund ku ñëwul si man man damay dund alhamdulillah yàlla may maa ngi sant yàlla bu baax kon daal da nga ñëw pour jàppale jàmm yow comme mais lii ma di jàng naa nag mais lii ma di mun ma ci liir dara ak waa fam que lii tur jëngal xanaa laay lé bismillahi rahmaani hasar lakka waa lii dama mun lii ma mënu ñoo xam lan la fi nekk di pam sa lii xaalis bi man kii nag bu baree nag tey defuma waay waay alhamdulillah mbokk yi seetaan tegtal ñuy nuyu ñëpp waay 4 5 6 7 8 9 10 ma teg nii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 léegi rek biir ma ko ñi 1 2 sax benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñett fukk deux cent cinquante ci juróom fukki junni ay ana ñoo wax mën na ko mënu ko tegtal nag day nag ah. tontu nga doon tontu nga ñooñu mais li ma jaaxal am na ñooñu ñu ne xam nga boo defee yi lu ne wax mbaa sa waaj jox na la xaalis bi <laughs> est-ce que ñii ne boo boo ko joxee du baax ci yow boo ko joxee du baax ci yow ñii ne est-ce que nga ko wala yu mel affaire yi daal day yéem nit ñi ñu naan ah xaalis ba nu mu demee lii fi nekk nii maa koy téye ba ni bi jeexee Meli, lagi léegi leer na ne man nga ko léegi yow kon bu daan firndeel na ne milliard man nga defal. voilà man ku lu pun milliard sax million sax. lu ëpp milliard man nga ko. billaahi wallaahi et damaa toog du ma bougé du du ma doon fenn c'est-à-dire xam nga mbir mbir yalla ak euh, mbir nit du benn. Mhm. nit ku ne yàlla may na la. mel nii bu ngeen koy def man ngeen xaalis bu boutique bi la gën secret xam xaalisu borom boutique ba mooy ñëw nga moom ngay xëcc mu ñëw bu la neexee nga delloo ko fa. non hmm. maa ngi xamal la benn affaire. waaw. luxus. Hmm. amul. kon daal lii tontu nga nit ñi lii du luxus. Cheikh. waaw. aywaay tegtal waay. ñu sant yàlla ko. Hmm. yàlla sant ko. Diama légui de tay da amna xaliss bo après wo len ma waxuma len ngeen woo ma dëggantaan woo ci kaf pour ma jox len sen wal mom moom. cinquante la wax wallahi 40000 ah les 300000 la jox li bi 250000 cent 300 mon ma trois cent man ma seetlu wul waaw. maa ngi tibb seede damaa jaaxle affaire bee mo lu la bett man la. 300000 nga def waaw nga ne lan. yàlla baax man nga defaraat lu ko bu la nexé milliard. mané ne. <laughs> xam nga seet war fa ñaa ya nee lu nekk sa kanam tawul te man sama xarit nga daa yee am naa lu la fi ñaan hmm. nga ne ma sama xarit nga loo la ñaan da ma koy may am nga loo waxoon ba ne lii ku dugg ci day hmm. la mang lay ñaan sama xarit bini nii nekk ci kii bi mu Cheikh Fall lig ni ko laay ñu koy siyaar bu baax nga ne ma dig may affaire ba émission ba deful semaine Cheikh Fall lig ni ko laay génn fa mu nekkoon ñu kontaan ci lool ñenn ñi di daan naan sa waa la ñi dafa léegi ma bëggoon xam foofu yow yaa liggéey wala dafa tombé wala nu mu demee noonu. waaw c'est-à-dire loo def. yàlla mhm. toog nga wax. Mhm. yàlla yàlla ñu ngi lay xool. jàmm man euh, li mu mun. Mhm. du mu warante ak doomu aadama. ma dégg. waaw gis nga bu ñu defee émission bi balaa balaa ñu def émission bi fekkee man maa ngi yor si kurus pour nit ko la. est que yow maa ngi yor sukurus. pour nit ñi ko laaj. yal na ko yàlla loolu lay jàppale. yaa may dégg. Mhm. kon bu émission bi jeex ay benn nit nitam woo ma téléphone man ak moom ñu ñu ñu dem bu sori bu ñu defee émission bi même pas cinq jours six jours yow nga woo ma ma ne fan laay nekk mhm. ma ne maa ngi fu ñu fu ñu bala moom ñëw ñëw Dakar waaw. Ah. alhamdulilah ay kon ñu ngi seqal seqal li ñu ko yi seetaan seen émission ngeen tegtal bii moom defe naa seetaan bu doy waar bu yéeme boo xam ne que li naa nopp dalooti na mais bi yoon bët mooy dalooti mais yii may gis nii man dama ko xeeb parce que yii doon na ma won yii quoi ba léegi nee na mais li desoon digoon nga ma doon milliardaire. nu ñuy def dañuy dem xool yenn bagages yi lañ bët ko parce que tey tegtal boo xam ne que billaay ku sàppe jàpp faneen di ko ñu dem ñëw. mbokk yi jërë jëf ci ànd bi ngeen ànd ba léegi ak seen émission tegtal mu doon émission bi nga xam nag euh, vraiment da ngeen ko bëgg jox ko bopp rafetlu fi mu jàpp ñun tamit lépp loo xam ne seen njëriñ la duñ ci tàyyi ci ji leen ko wan ñu gis jabarkante bi doon waxal muy def yu doy waar yi ba léegi xaalis baa ngi nii de maa ngi xool ba xam xaalis bi dina ma topp ba kii ba xaalis bi naawagul mais fu doy waar laa ji jabarkante damay gis yu towa fi mais yére bi dafa ndro bi yenn mbër yi di sol ci lamb yére bi mom hein ah, bu maroon bi waaw man ah, jox ma la dama la ma laaw wala léegi damaa ragal ma ne ma waaw hein ah. kii nag ci fas yi lañ koy lu tax kanam kanam la. yii pop moko mom dafa dama don la yére ba gis lu gëna graw yi mbaax waaw sama pop moko mom ak ak yére bi li wo bu ko taxaju moom dafa moroon nii rek wala dafa tilim wala nu mu demee nii. non lii la mel. ñu la mel kii. waaw boo ko sëlee kii léegi. waaw ak mbaxana bi. waaw dëkk bi. waaw xam nga kano kano. mooy nag kano. ci ay ay ay ay armes xamante ka kano kano. waaw xam naa fi ngay waxee la ngay wax tur bi laa xamul. mais non du jóg nga sëb bi. billahi li naan Sarr lakk doom la ilaha illallah bi nga ah, dëkk bii waaw gis nga quartier bi yow kese boo ko boo ko solee ba taxaw góor ku ne bu la fekkee ah. yaa koy takk si loo xam ci nga toog kenn ñëw nga takk nga toog ba mu nekk soixante nit kon ñi mën nga koo xeexagum réewum la ab dëkkub la xam nga ñoom ñaar ñoo ànd ah, ñoom ñaar léegi saako bu yàgg bi tamit moom loo ko tax a jóg. yii waaw. ñii bagage yi lay jóg dugub. waaw ñoo jëndee ñoo ah. bu xonk bii nag bu rouge bi bii. Ah. Ah. Euh, bu may ànd ak jinne yi. waaw moom tamit bokk na si mooy. booy ànd ak sa mbokki jinne yi day waxaale léegi. <laughs> ini mau dama gis saya béjjën béjjën di doy waar di yi takk deret ay orang waxoon nga nu ci la ini yi naan si nu mu demee nii jine yi te raay dund ñu de gisuma fii lu dund de waaw non xam nga ñoom no nañ bu baax actuellement actuellement ñu non tellement ñu mais li ma gis nga gis leen ko kii kii kii ñu ko ñu gis man ñëwuma ko am wóor. la la danoo jëriñ dara. ngir mënu mënu wàcc ñu xool ko. waaye teg na kii li mu dee yàgg na woon. Cheikh kii waaw waaw. kii Pape Sarr tiit na waaw. lu nekk ci biir. waaw boo ko gisee léegi. tant que dama jënd mu guro ak ginaar pour ma présenter leen. waaw dootu gisaat àdduna sa bët di gis. kon jéem a xool ci biir sax bu leen jéem a xool li ci biir yàlla na yàlla def jàmm léegi laa ilaha illallah voilà tegtal waay tegtal nag man maa ngi ñëw tegtal bu demee ñëw tegtal a kii tuuti patine tuuti mi ngi may soog a jàpp lii rek. lii. Hmm? kii kott ma ci nekk ci biir kott. kott waaw. yow da ngay kott wala da ngay kott. voilà ku ñu kott. Hmm. dindi ko moo nekk ci gis bëggoon ni daaw gis ko léegi maa ngi seen mbir nag lii xam nga lii la wàcc ci ak yi taxaw di lang ne lu ko tax a jóg waaw boo gisee moo mu kontaan mo jël waaw jiw laa tax man man nii waaw kon parce que sama domon ndey nga waaw bugguma ku la xeexal waaw xam nga waaw tax mu moom mu jóg léegi moo ma neexee dinaa ko yëkkati. waaw nga wax ak ñoom. nga ne ko. man Cheikh Talif su fekkee man maa tax nga nga ñëw Dakar nga wàcc. <laughs> Eh, eh, eh, defal boo waxee boo waxee kontaan na taxawal. waaw c'est-à-dire wax moom. Mhm. loo wax rek boo waxee wàccal day wàcc waxee. defal noo mën dafa gën a. bëgg yëg. waaw kii moo lay kon defar na ma ko pare fi nekk. waaw ku bëgg aussi nga wàcc suuf. kii moo lay defar. waaw kon boo bëggee yëgal nit yëgal ko bëggee wàcce wàcce. comme nit mu yëg ci affaire yëg ci kaw. waaw mu am doole mu am tur. waaw mais man li ma jaaxal kon man sama dangaa yëgal ba pare wàcce wàcce dama koy yëgaale. léegi dama la wax ki li mu jot. waaw yow tax ma jóg. waaw li ngay li lu ñuy lu ñu topp si yow ni ñu soxal. Mhm. mooy tax yow mu indi la lii. cest fekkee ci loolu demee. dina wàcc su fekkee demul noonu dina taxaw du wàccaat. waaw du fa ngay wax. damay dégg. waaw voilà. jax na fi mu nekk nii alhamdulilah alhamdulilah léegi ci bagage yii ay lan la. lii sangu la lii suuf hmm, ko nit ki defee lu mu koy jariñ. sa wërsëg bu fekkoo nga am loo loo jël moo mu taxaw sa loxo. Hmm. loo lu même boo ko amee. day hmm. taxaw sa loxo am xamante bu ñu amee rek day day dem rek day dem rek. waaw ah, ku mënul téye xaalis bu daje daal. voilà. ah d' accord d' accord bii nag. lii. waaw. mooy ku amul doom. comme doom ku góor wala ku jigéen. lépp daal. Ah. waaw am soo am doom. Hmm. boo ñëwee. waaw non. léegi yow ku am koo xam ne kat buy wax day yudd rek fu mu wax du yudd loolu mën nga ci dara. mooy. comme euh, kii di génn quoi. xëy bi di génn ci maanaam buy wax ah ok loolu loolu feebar la. Ah. incha allah mën nga ko faj bu baax sax. ci ñaata fan. non loolu moom quatre mu mu joxe. quatre jours na ki ma yóbbu doon question bi ngay dina dégg incha allah. incha allah dina xam léegi. bien moom xamee naa rabel bu maroon bi mooy bu kattan bi. waaw. Hmm? bii mooy bu kattan. waaw bu kattan bi ak bi nga ne doo ko jox ko mu jabar. non. amul jabar. waaw kii. <laughs> xam nga dama dama la euh, du mu nangu moo jox la nga sonn. waaw ah. wala ñu ñu dàq la.

lii moom pour nit bu bëggee am bu bëggee am alal nu ko def da ngay takk rek waaw da ngay defar ñaari ni indi ma ci loolu ci lii lay liggéey ah waaye yow du yow laa ko defar mooy defar indi la waaw waaw nga day am alal daal non lii laay liggéey ma defar ma jox la nga takk sa loxo yi non boo xasee takk lu ko yàq lu ko teg dara xanaa yu jeex yii bu jeexee lépp bu jeex sa loxo sa alal jeex wax <laughs> ci yow bu réeré ma ne na dégg nga kon dégg daal mooy loolu gara ah i bouteille yi moom ñëwee mu ko laal ñëwee moom ñëwee mu ko laal léegi ma ñëwaat ci yi ay xob yi ratal bii boobu la bii waaw yi gërëm na de li nii ñeent ñi ñu ko xool mu mel ne bant rek comme ngeen. lii gaaw na de ku ko sangu. 20 nga sangu 20 jours. waaw 20 jours nga sangu. pour mu dugg kaso. Mhm. problème la. même bu nit kii defee toj toj a dugg kaso. ma mhm. boo ko sangu 20 jours. Mhm. bu mot bis chaque jour chaque jour boobu 20 jours. non saa sa sa yaram bi aram na si kaso oui même su fekkee yaa ngi bëgg def la leneen bobu ci mujju bi dina indi le problème kon do def non do def sax dégg naa fay wax kon koku lolo ko tax li mo ay fas la wala ah? ba ni ci ci la quoi fu ñu nga rek mom mom du dara non dara la ah, ah. kii kii waaw. dara dara de mun naa la mun naa la takk léegi saa bi du jógaat. <laughs> déet du xam dina tënk ci keneen ñaata da ah, ah, ah kon bii loolu ko tax a jóg. bii mun naa ko defar jigéen takk doo om am ñu xamante suñu doom ñu ngi taxawal rek ñu ngi am doom rek du ñuy. Ah. doom rek am doom rek léegi nga ñëw ma defaral la nga sos sa doom mu takk du am doom. bu bu amee jëkkër nga dindi ko ah maanaam du du du mën a mooy daal voilà su fekkee jigéen nga am nga jëkkër buggoo nga gaaw am doom nga takk boo buggee am doom rek nga dindi nga denc kon lii gën a am na de mais kon jigéen ko tax a jóg dégg voilà waaw yoonu nekk ci moom voilà yoon góor am na solo ku ne gis naa saafara bu ne lu ñuul moom maa ngi ko soxla ko bi mel ne lan bi moom lii moom comme nit jinni boo ko jàppee jinne voilà dafa jóg jinne boo ko jàppee. ah Jamal Kanté Jamal Kanté nag waxtu bi mi ngi ñuy dab mais ndomba gën laa bëgg a dañ kumpa ndomba gi bii moo àndal. bii ndomba gi ak waaw kii nii. gis nga bii waaw bii waaw bii ñoo àndal. peer ñoo àndal. am na lekk ci biir. <laughs> moom lu moom luy njëriñam. njëriñam foofu la. kii. yal na ah, lu bëri lay daal tàyyi nga ko wax. am na xamante bu ñu bu ñu dugg bu ci biir. waaw. Ah. day ah, léegi waxtu bi nit ñi koy nuyu ak looy tàggoo tàggoo bu dul tàggatoo. waaw alhamdulilah man kay. maa ngi nuyu. ak looy ñaanal LCS LCS lu bëgg mu nga ñaanal. non ca kaw ma ne LCS moom. waaw. LCS moom day jóg. ci kaw ci kaw No, kaw ci kanam non day dem rek de dang ko wax ni pour mu neex rek mais wala da ngay wét ñaan jàpp No, ku nekk sa nit ah, sa xol dang ko ñaanal waaw jeex na ko kon bu xatu la sa bopp kese no da ngay ñaanal da ngay ñaanal yow moom mu dem kanam yow yow tamit mu nga dem waaw jeex na alhamdulilah amee rek donc LCS vraiment maa ngi leen sant maa ngi leen gërëm donc vraiment nit ñaar nit moo leen jàppante ko benn du jàpp Je kiicappula kiidu buya ke tan koy baye yamede kon ñaar ñetti mooy yappandu maa leen nuyu bu baax inshallah maa ngi fii waxtu ya. rek man du ma Dakar doo fi toog doo eh, fi yàgg voilà du ma yàgg la soxla kon bàkkeel la lay fekk voilà la mu fekk en tout cas balaa may dem am change fekk nga nga daw nga fekk ma mais instant ngi di numéro bi mais ku muy nuyu sa soxna see. sama soxna. Mhm. sama taalibe yi. Mhm. comme kan ak kan. lépp siyaara. Mhm. Malick. Miidu. waaw maa ngi nuyu ñëpp. ak ah, sama xarit. kan ci sama doomu ndey. mooy Babacar. Babacar waaw. Babacar donc maa ngi koy nuyu sama doomu ndey Koddu. Koddu oxygène vraiment ku baax la sama nit la. bilaay ku baax vraiment la sama nit la sama mm-hmm. doomu ndey la. Mm-hmm. donc maa ngi koy ñaanal maa ngi koy remercier. Mm-hmm. incha allah rabbi maa ngi Dakar Cheikh Talif waa Dakar ñëpp ñu. ngi fi yaa ngi fi. mais dafa am nga waxoon yoon bee da nga ne dama ne loolu nga def ma milliardaire. fii deux mois nga ne ma bari na ba léegi nii nag maa ngi may problème mu. non yow yow yow moom waaw. dama lay defaral euh. yow yaay ko man ah jot na de yow yaay ko man su fekkee du baax danga wax sa du baax man lu mu lu mu du baax rek non c'est-à-dire man damaa doomu aadama lii du baax. waaw lii de bu ma koy defaral moom dina baax. yaa may dégg may defaral ñeneen lu baax. yaa may dégg kon ñi ñu ñu xel. yàlla moo mun man mi jaam ak Kanté mënuma dara suñu borom moo ko mun. tey nga ñëw moo fajal la mu faj la du man suñu borom la. kon nga a sa xel du man si yàlla la. Mhm. yaa am na xamante ngeen doog ngeen jóg. ngeen sangu seen yaram ngeen uttaay leen saafara pour ñu di bul jóg pour sant la korto mu bañ a jot ngeen booy liggéey nga jóg nga dem ut ñaan nit ñi dimbale la sa liggéey avancé loo am nga mun a ko de jën euh, denc ak seen njaboot amee dégg mhm. voilà amuñu xamante ñu ngi dégg Sénégal ñu xamante boo ay ay dem sangu sa yaram wala ay sandi korte wala sandi yi donc loolu yëpp ay détail la ay détail la mhm. amee nax waaw boo dëgg ñun dem na dem na lee dëgg da ngay dundal nga or hmm. am na mi ngi si ci biir alquran hmm. lépp am na mi ngi ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko sànni kott mais ku toog bu waxee kott eh, amul moom xamul dara man Jaama Kanté moom ma jàngul te kun gor da nga koy dindi kun liggéey da nga koy dindi. voilà ah man dama koy dindi. Mhm. ci seen gor dama dindi si ça si rapidement ñu xamante mënoo jóg mënoo toog mënoo wax. barke rasulillahi billahi wallahi tallahi dinaa la gindi si ça si rapidement. léegi ku ku ku ku tële ku ko juddwaale mën nga ci dara wala. góor góor góor gu comme. góor gu mënul ki dara daal ci soxna te judduwaay. non su fekkee seet naa dafa la juddoo xam nañ loolu. mënoo ci dara mënoo ci dara. ko constaté euh, euh, moom. bii de dinaa dinaa ko fa d'accord jërëjëf kon Diama Kanté bi waxtu bi moo ñu dab ñuy ki nga xam ne que mooy Mamadou Ndiaye Sam Couture nekk ci ca Derklé ñëwoon ñu li nga xam ne que moom lañ sol cité Asegna Derklé ci wetu booy dem école Khadim Rasoul ak soxnaam soxna Dieng. Euh, nekk foofu tamit société artisanale de Derklé ak Fatou Dieng Mamadou Ndiaye di ko jaajëfal ak waa atelier ba yëpp ak ñoom Kaana ak yu mel noonu Mamadou Ndiaye ñaw bi nice na rafet di leen jaajëfal di jaajëfal tamit euh, ku ci mel ne Ablaye Dieng nekk fële ca Almadi di jaajëfal képp koo xam ne que euh, àndoon nga ak ñun jëlal numéro Mamadou bis ñaw lu baax li 77 645 01 73 moom lañ bind noonu muy romb sam couture mooy ñaw yu baax yi di leen jox dig daje beneen émission tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraange dakk euh, di tamit euh, Pape Sarr nekkoon ci caméra bi ak Khadim Gueye waxuma Khadim Gueye jàngkat ba ma mais maa ngi koy nuyu Khadim Gueye caméraman di jaajëfal Moustapha Ndoye Ndiaye nekkoon ci son bi ak Abdoulaye nekkoon ci support bi madame Fall doon monteur bi nga monteur lu jaar yoon ñu sant di ko yaa

77 084 09 00 bindal bareen 77 926 47 82 77 926 47 82 numéro Diama Kanté fii si jaabul doomu jinne mi génn xaalis yu bëri yi foofu nga koy jotee fekk ko ci Pikine ci euh, wetu kii bi technopole bi ginnaaw kër ba Baboy ci wetu Banque of Africa bi dis que sa soxla lu mu ci mën def ko leneen li ñu bàyyi yàlla xewal dikk loraange dakk tegtal ñu gën ko yaatal maa ngi ñëw ak yu doy waar